ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi maan mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen yaakaar naa ne jëmm ji ñuy jàkkaar loolu kenn dootu ko présenté buñ ko waxee muy Sa Touba nekk kilifa goo xam te nekk suñu borom daf ko may ci wàllu xam-xam nee naa leen kuy ñaanal roi des arènes moom yaakaar naa ne xam naa ne kenn tawatu la suñu borom nag may ko xam-xam boo xam te nii doy waar la garaaw <laughs> saa maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Makan ñu ngi lay delloo nuyu bi ak ziar bi di la ñaanal yàlla ci daraja Seydina Mohamed sangub sang yi yàlla sàmm la taxawu la yokk say teraanga ak mboolem kuy dégg suñu kàddu di jiital ci nuyu beeg ziar bi sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru yàlla sama borom bi yàggal ko fi loolu te moo ànd ak wér barki seexul xaddim incha allah. ñu xëy nañu benn bis muy jàmbaar production ñu gis mu taxawal ci diggante combat Siteu ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo coow li bari trop ak polémique bi bari ñu naan Siteu waru Modou waru ko jël làmbu yàqu na dégg naa ci ay façon wax bu ne diggante Siteu ak Modou Euh, xam nga tey nit ñi xam nga xel yàlla nañu yàlla musal ci xel mu ñaaw yooyu yëpp xeeti xel yi ñaaw la rek waaye du dara parce que Siteu bu demee ba war a mënta bëre Modou Lo boobu mu tekki ngëmam Siteu lan moo ko tax a dugg ci làmb waaw ah, waaw du lay reewe bëri nag la de guerre mi nga xam ne Modou bëri nag moom Eumeu Sène bëri ak moom booy Niang bëri moom. ndax dégg nga bu loolu bu bëree moom wane boppam wane njàmbaar jom ful la VIP tanoor yi ci kaw yëpp kan moo ci amul komba léegi Siteu ak Modou Lo rek toog amuñu combat ñu bëgg a xaar ay affaire lan ay affaire du mbokk bu jaxasoo ak loolu te làmb doon seen teraanga doon seen liggéey football bi ngay gis da ngay gis ñaar ñu bokk ndey ak baay bokk benn terrain te duñ bokk équipe buñ far mais kenn ku ci nekk tey ci kër gi ngay indi ngir sa njaboot lii sport la dafa war a boole mais waru tàqale. muur dafa am lu dafa wane ne moom mat na njiit est-ce dégg. mbokk gi nag mbokk gi ci moo tax man la Modou dafa wane ne moom mat na njiit un bon exemple la wane foofu dafa wane ne sport amul ay kii lii laa bokk ak moom laa laa bokk moom sport bu ngeen bokkul benn gox bu ngeen dëkk benn koñ bu ngeen dëkk ndax dégg nga am na ci ci affaire làmb da ngeen war a dem ngeen bëre Modou loolu la indiwaat ci làmb pour en cas ëllëg kenn du am lay. fi mu toll nii est xam nga ne Modou tàqale na lu bari fi mu toll nii Modou indi na diggante Siteu ak Boy Niang làmb dana ko taxawale ci ëllëg ndax lam doon séentu la ci la ci Siteu doon sóoraale tey moom moo nekkoon ci diggante ma Modou moo gën a jege fopp te tey Modou jël na ko di bëre moom kon diggante ma Boy Niang loolu dootu fa am làmb te jéeku na foofu. na foofu ndax maa ngi dégg Siteu non lu leer laa lay wax nii bunt yi tijjeeku na ci côté yëpp Modou nag loolu rek la ci jublu daaw jublu defar làmb. na mbër war naa bañ a takk dara daan tey mu indiwaat mbër mën ngaa bokk ak moom bëri bëreeg moom parce que gëm-gëm la te moom gëm na boppam xam na li muy def baax baax wax dëgg yàlla. est-ce que bëreeg Siteu Modou bëreeg Siteu du risque ci làmb du risque ci Modou. fii lépp risque la ci àdduna. ñëw bi nga ñëw fii sax ñun fii ñu toog nii rek risque la lii bi ñu koy defar dañ ko fekkee lan moo ñu xamal ba xam garanti na wala garanti ñaata nit nga dégg ñu ne ab dal wàcc na seen kaw yàlla mooy suturaalu jaam rek bi sama waati rek ko fi ne ne da gëm yàlla Modou foofu la nekk leneen mais combat bi mbokk yi ñu jege ñu bari ne Modou daf koo jël pour may ko courant bi Modou dafa war bëgg a bàyyi làmb moo tax mu bëgg a bëri Siteu d'accord Modou buy maye couronne day dem ba xooli Siteu jékki-jékki woo ko ne ko kaay jël ma may la couronne mu daan ne ci yooyu si mu daa ragal gàcce de mu daa bañ defet mu wax la ko tey mu boo ko dóoree day fay boo ko wokkee da lay xuri boo ko gàjjee mu matt la ci ko booboo nekk ci moom bañkat la nekkul ci yooyu noonu ni gars yi foog de te bu bis baa ñu xam ne Modou newul ci yooyu Modou comme que ñim nekkal fii di ànd ñoom guddeeg bëccëg suba ngoon sax comme ci jàkkaar kii waxuma waaw waxuma naan nag tamit làmb ñu fay ko mu xam ne lii teraangaam la moo war a jóge ci Siteu amaat yeneen combat yoo xamante ni da cee war a faye ko centaine de millions xam li ku koy may ba pare mu koy faye sëñ bi tamit nañ bàyyi seen caaxaan yi bu bis baa daal danañ xam ba xam ñun làmb ji fan lañu toll incha allah. comme li may wax sànq rek mooy dama gis Modou bëreeg Ama Baldé daan ko avec la manière bëreeg Boy Niang daan ko ñëpp naan Modou tafaati na ñu dem gis ko mu jël Siteu moom dafa jaaxal senegal yu bari moom ñu bare bari leen jaaxal. dafa waxoon day récupérer te Modou bi mu leen wax damay récupérer boobu kenn indilu ko avance su boobu Tapha Tine dëgg loola de joxuñ ko avance Tapha Tine de daa jóge ci làmb ji ñu tàllal ko micro mu ne dama leen dama bëgg récupérer mais bi mu noppaloo koy noppalu koy sëñ bi. bi muy noppaloo ci temps bi muy noppaloo ñu yëkkati Modou waxu leen nangami at laay noppaloo waxu leen nangami weer laay noppaloo damay récupérer la leen wax. ñu tas combat yi ñëpp jël ay combat di ko xaarloo ci ay combat yoo xam ne kii te mu gis booy bi taxaw li li VIP di dugal ci stade moom lay dugal ci stade bi mais léegi man xam nga lan ma laa mënta comprendre Siteu Balla Gaye déggoo ko foon ñu doon ko dox bu taxawoon kon lan la ñuy wax Siteu Ama Baldé Ama Baldé bëreewut ak Modou lu tax Siteu bëreeg Ama Baldé bëreeg Modou ba pare ñu doon dox Siteu Siteu Ama Baldé combat yooyu yëpp ñooñu yëpp nekk ci ay contrat ñu jël si te jox loo ñuy wax ne làmb yàqu na xanaa ñoom ñoo yàq làmb làmb kay daa gën a dekki. risque la nag nan la doonee risque. kii ne tànt kii ne tànt rien a gañ rien ku tàntewul doo gañe ndax dégg nga bu baax naa ni. yow kan mooy favori. Modou de lañ jox foofu. waaw ah, léegi quel est le problème. ñooy favori taxul yaa mën dama leen laaj quel est le lamb saa dama ne bruit bi waa kër Siteu yi am ci coowu làmb ci monégas ci ay wax ci waa jàmm gën ni ñu mobilisé te ba jàmm gën sasoo ci làmb ba tay ñu ngi doog a bëre duñ dégg luñ déggul ci combat Ama lu ñuy nettali war lay doon rek ndax dégg nga lu ñuy nettali war lay doon rek bis bu ne jaar na fi. tàkkusaan mënut a rëy rëy rëy ba gën a rëy Balla Gaye 2 Modou baa mu gën a rëy Balla Gaye 2 Yékini baa mu gën a rëy Modou Lo Ama Baldé te bis yooyu yëpp jaar nañ fi Modou Lo Siteu tàkkusaan ju mag lay doon tàkkusaan ju rëy lay doon yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm rek. Hmm? ci ay nañ ngemb li du laal suuf de séeréer seeko ngemb li la ngemb sabab la seede yàlla ngémbu sabablu la yàlla moo yor yàlla yor ngémbu ndax dégg nga bu baaxul mu naan nii yàlla moo yor mooy xool lu ko neex def ko ci jaamam jis nga kii war a toog sa kaw boo doon dem ci jaww ji sax mën a wax bu du toog sa kaw ndax jiitu na sab juddu li ci des yëpp sabablu la ñun dañuy ñëw yàlla suñ borom bi ñu koy ñaan yàlla di sabablu di def li laaj nag lépp duñ bàyyi dara yàlla diñ ci suturaal. pour lan ñuy bàyyi détail <laughs> xalaatuñ ko sax mu man boog lu ma daan def benn naa ko def fukk ngir coow li ma dégg ci làmb ji hmm? waaw. non kooku Baye Fall la kooku du menacer kenn moom bëgguma làmb ji bëgguma ñu indi ñu def ko guerre. Modou Lo ak Siteu la du ñun ak ay Abou Seck ak ay keneen keneen ñooñu ay Baye Fall lañu. sequ ñoo ñoom lu ñaaw sequ ñoo ñoom loo xamante ne. taxawee mhm. ñu ngi doon yàkkab ci Siteu bëree mhm. loolu moom déglu ma ko seetaanu ma ko te wax dëgg yàlla bu ma ko kiiwoon nit bu ma ko seetaanoon nit du ma ci wax parce que ay waxam la. Mhm. waxi jàmbur sama yoon ne ko ci. du ma dugg lu sama yoon ne parce que nekkuma place boobu noonu du ma place nekkuma place supporter am na question yoo xam ne bu ma koy posé dama posé ci domaine bi ma nekk. boo jëlee supporteru Modou wala supporter keneen mun nga ko laaj wala koo xamante ni dafa nekk ci xam nga yeneen côté yi mun nga ko laaj mu wax ci loolu mais am na boo xam ne du sama cër man waruma tongoo kenn waruma tontu kenn waruma wax ak kenn lu sama yoon nekkut mhm. mais mais mais mais ba tey ma ñëwaat ci combat boo xam te ni taxaw na mu indi ay polémique coow ci diggante Ama Balde ak Reug Reug ci diggante Boy Niang ak Reug Reug mu indi benn polémique boo xam te ni gis nañ ne mi ngi indi polémique fan yi man Ama bu ma sañoon cinq ko cinq avance lay jël bu ma bu ma sañoon parce que dama ko yéene ci làmb makan Ama dafa war tedd ci làmb. Boy Niang nag. Boy Niang Boy yow mun nga ne ñaata combat la bëre Tanor ah ñaata combat VIP la Boy Niang bëre Ama Baldé bokk na ci ñi gën a sonn ci làmb te teddut ci làmb Ama dafa sonn ci làmb ay làmbam dafa tardé. ndax temps bi Ama Baldé toog bëriwu ko ay 5 ans yooyu yëpp Boy Niang mi ngi ko doon bëri yàlla nga koy suturaal Ama moom seul moo toog 5 ans takkul ngemb tey joxe dépense lu gën a metti loolu dafa métti 2018 la toog bëriwul ba 2000 lan waaw mu door a takk ngemb bu bëri loolu lu ko gën a metti ak li nekk ci ginnaawam man li may wax chaque jour kooku dama koy ñaanal yàlla. ndax may dégg ñu naan dóoru fayook nangam nangam ak di indiwaat yow est-ce que combat boobu du diis. la nañ bàyyi loolu. loolu sport la da gis nga comme je gis nga sport moo mel noonu. ay match de poule dafay am ñi nekk ci kalaaf bi nag. Hmm? nag laa lay leeral. nit ñi dañuy dañuy door a bàyyi xel Ama Baldé ak. Euh, Boy Niang ñuy bokk adversaire waaye yegg nañu bokki adversaire de xaw ma ndax dégg ma wala déet waaye yàgg nañoo bokk ay adversaire li moon Boy Niang bëri na ak Zos Zos daan ko Ama Baldé jël Zos daan Zos Boy Niang bëri na ak Ama Neex Ama Neex daan ko Ama Baldé jël Ama Neex Boy Niang bëri na ak Tapha Tine Ama Baldé jël Tapha booy Boy Niang na ak guy gi daan guy gi guy gi jàpp Ama Baldé daan ko est-ce que yaa loolu loolu ñaata la du cinq adversaire yu ñu bokk ah ñu boo bokkaat Modou Lo ñoom ñaar muy six adversaire ñu bokkaat Reug Reug mooy septième adversaire xanaa kon tey nit ñi dañuy door a seetlu loolu mais jëlandoo ci même avance bi xoolal jëlandoo gi yooyu yëpp mënuñu ko jëlandoo bu bërindoo ko ci benn jour. mook lee ñoo yam rek dangay ngay pare ci kee ñu jël kee rek yàgg nañu bokk ay adversaire parce que ñoom ay xale lañ yu nekk ci làmb di daan seen doole adversaire yi nekk ci làmb ñoom ñoo ko bokk ñi muy bëreel Boy Niang ñi muy bëreel ñoom la Ama Baldé war a bëreel Ama Baldé ñi muy bëreel ñoom la booy Niang war a bëreel parce que ñoo bokk adversaire yi mënuñu taaxali ko Ah, mais tamit pikin nañ bokk ndey bokk bàyyi te bàyyi xale yi ñuy jaxase ñii sport la ñuy dund ñi nga xam ne takkuñu ngemb takkaanuñ ngemb dañ xool lu rafet ñu wax ko seen diggante yi dajale xale yi bu fekkee drapeau pikin bi moo leen ñor nañ dajale xale yi dajale Ama Balde dajale Boy Niang dajale soq ñu taaj leen xale yi pikin yi nga xam ne ñoo war a téye drapeau pikin ëllëg nañ leen taaj waxtaan ak ñoom seeni mag dañ fay jaaroon moo xam Mouhamed Ndaw Tyson dafay jaaroon fexe na ba jël couronne bi Tyson jaar na fexe na ba jël couronne bi ñoom ñaar ñii nañ reyante ba kenn jël ci couronne bi indil ko waa Pikine moo gën ñu di leen yàqal ba seen carrière na a salte ñu bëree ba bàyyi bëre te duñ jël couronne roi des arènes loolu du yoon parce que mérito woon na mérito nañ ko nañ leen dajale waxtaan ak ñoom ñu bokk ndey bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo mbooloo mooy doole parce que lu ñu am mbooloo moo leen ko may buñ xaajaloo woon du mel ni yàlla suñu borom bi moo bëgg ñuy ànd ay jullit dañuy ànd julli sax yàlla da cee taamu mbooloo waxuma laa leneen nag sëñ bi lii ñuy def nii nañ ci ànd bokk ndey bokk bàyyi xool xoolal gox yi nga xam ne dañoo féewaloo yëpp am ay problème dañoo ne ciy jafe-jafe géejawaay bi féewaloo dañoo ne ciy jafe-jafe bi ñu féewaloo dañoo ne ciy jafe feneen ak feneen ku ci féewaloo rek da koy gis caarooy ba fa coow li bëri dégg nga ko kii jaar ni wax ni kii jaar ne wax ne day am jafe-jafe gis moo tax képp ku am seetlu lu dul jàmm jàmm ko gën yàlla na gox yëpp am jàmm man bu ma sañoon milliers yëpp dañuy am jàmm bu dee indi rancunier nañ ko indi rancunier ci yeneen gox yi waaye dëkk bokk dëkk ba pare di indi rancunier loolu baaxut te ku la tàqaleeg sa waay mi ngi ànd ak waayam ñiy dem ci mbëri naan la di wax na la nangam def na la nangam nañ ko bàyyi te bàyyi mbëri ñuy jaxase mbëri ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi nañ moytu kàddu yu ñaaw àdduna amul solo fii loo gis yàlla la nañu rafetal te mbër yi nañu moytu itam ku leen di indil ndax képp ku la indil dana la yóbbul booy ñaa bul déglu ku lay indil naan la Ama Baldé nee nangam Ama Baldé bul déglu ku lay indil la booy ñaa nee na nangam gis naa ko fii gis naa ko faa kooku la indil noonu day dem yóbbul la joxal la déedéet nañ booloo bokk ndey bokk bàyyi te moytu yenn détails yi sew yi sport ak loolu ñoo ànd diw bëgg la yàgg na ci sport te kenn ku ne xam nga sa moroom fi mu la teg bëggante ngeen yàlla leen nattu ngeen bokk benn métier lu jafe ngeen am tey yéen ñaari xale yu ndaw nekk ci benn gox àdduna yëpp di leen bàyyi xel ñëpp bëgg a bëre ak ndax seen ak jom seen ak kon bu leen nangu ko leen jaxase tamit sport daa war a boole mais waru taaxale yàlla na leen yàlla defal jàmm ak euh, mboolem kuy dégg suñu kàddu rek yàlla sàmm la defal la jàmm. tey ñëwaat ci coowal promoteur fan yi daa mel ni bari na de coow li bari na trop ci promoteur yi. waaw promoteurs yi coow la fi nekk rek waaye ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk groupe yi whatsapp yi ñuy waxtaan dañuy déggante ay lobby rek mais loolu yàgg na ci marché marché boo gis am na ñuy xëccoo client bi xëccoo client bi loolu yàgg na ci mais teewut ñoom ñoo bokk marché bi promoteurs yi ñoo bokk fenn fuñ benn tool bu ñuy bay di coow la fi nekk rek ñoo bokk benn tool bu ñuy xëy ñoom ñëpp. li nga xam ne nag mooy révélation la ñuy tëjee sax mu ci politique bi. ñu nekk ci jamonoy campagne coow li bari trop sax Amadou Ba Sonkoy Jomaay Jomaay ay Sonko coow li bari politique bi looñ ci mën a wax. sama xel néew ma kenn mooy gagné mais élection yii nii nii nii di de di ñëw nii su doon sama sago de moom wax dëgg yàlla ñu nga xam ne ñooy patriote yi te bëgg Ousmane Sonko te réew mi élection yi nii ji ñëw nii bu doon sama sago moom lu ñuy dàq la ba Ousmane mun a bokk. mais Jomaay ak Amadou wóolu ma ko de. waaw hmm? ah, wóolu ma ci Jomaay <laughs> wóolu ma ci Jomaay waa kenn ku ne nag am na gis-gisam mais wóolu ma ci Jomaay. bu doon lu bu doon lu ñuy dem la élection ni Jomaay ak Amadou Ba sama xel ci Amadou lay gën a dal que ne Jomaay waxew ma nag ci ci cadre bi nga xamante ne xel doomu aadama mën nañ fa demee mbooloo ak politique bokkuñu. mbooloo ak ndam bokkuñu nit mun na mbooloo lool te du am ndam te biddiw doomu aadama dafa doyar waar daal laa xam ne bu bokkoon mun na metti ci gars yi trop huit heures ko commencé onze heures mu tàqalikook ñoom loolu yàlla ko defaloo biddiwam fi mu taxaw la waaye buñ jàpp na li ne ci Ousmane moo ne ci Diomaye nañ ci def très attention di ñaan ci yàlla réew mi jàmm ki gën ci réew mi ki gën ci réew mi yàlla na ko fi yàlla teg ci darajey Serigne Saliou ñun jàmm rek lañ bëgg suñ réew mi jàmm kese lañ fi bëgg bëgguñ fi leneen jàmm kese lañ bëgg yàlla na yàlla def jàmm bu fekkee Jomaay moo gën ci réew mi yàlla na ko fi yàlla teg bu fekkee Amadou Ba moo gën ci réew mi yàlla na ko fi yàlla teg bu dee Ousmane gën ci réew mi yàlla ko yàlla teg te man de wax dëgg yàlla su doon sama saako Ousmane Sonko dem élection ndax nag ay natt yu métti daa war a ànd ak bànneex te Ousmane nag fi mu toll nii nag bànneex laa ko yéene wax dëgg yàlla. kon ay ñaan soo koy jamaay jamaay soo ko moom. non man gawuma loolu. da ngay nit ndey ak baay ngeen bokk génn kër yàlla jël wërsëgu kër gi jox la ko. te yaay mujj juddu ci kër gi. yaa may gën a sonn fop dàq maa sonn fop. li may daj doo ko daj. nga am lu mu amul. Diomaye kenn xamu ko woon buñ ko xamee c'est grâce à ko waaye ndax ñi xam Sonko jëpp xam nañ Diomaye maa ngi gis ci internet bi benn booy mi ngi wax ne man diw laay Joma kii laay voteel mbay jaawale Diomaye ak mbay Ndiaye moo lay war a xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi dégg Diomaye Diomaye ji sax te xamuñu ko mun nañu dem ba ci élection yi erreur am foofu te Diomaye pas avant élection yi dafa waroon dañu dafa waroon miin maanaam dafa waroon a late ci bëtu doomu aadama yi comme ni ci Ousmane Sonko late moo tax jàmp bi mu jàmp nii arrangé wu leen ñoom nag ñu ngi dem ak seen fugg ak seen mbooloo jàpp nañ ne lépp leer na bisimilah quarante jàpp nañ ne lépp leer na waaye nañ def doucement te mm-hmm. nañ def doucement te defaraat seen toogaay bu baax a baax te gën a liggéey mm-hmm. bu ñu ne bëre rek yaakaar na carte gi leer na ci seeni loxo de man d'accord ma loolu de d'accord ma loolu wax dëgg yàlla. ci looy di sant yàlla rek di sant yàlla baax a baax magan man man damaa sonn parce que ñu bëri dañuy yaakaar ne ci làmb rek laay liggéey te man làmb daf ma tardeel parce que làmb daf ma tardeel yow xam nga ci dara. man ci côté bi may liggéey làmb ci gën tuuti li may faj ci doomu aadama li may faj ci ñu feebar ay at tëdd ko feebar ma faj leen bañ wér mun ma la wax nu mu toll te loolu ma gënal fopp lu ma mën a am sama àdduna di faj ay doomu aadama ndax wéré di dafa metti ay nit a ngi nekk ci ay gàllankoor yoo xam ne nit ñi di war a nelaw nelawuñu nit ñi di lekk lekkuñu nit ñi di doxi seen soxla mënuñu koo doxi makan loolu ma gën a ñor foofu man dama doon ñaan damay ñaan yàlla chaque jour moo am kër goo xamante ni fii Ndakaaru du dara pour faj kese soxla mu fa dara pour di faj faj kese kese kese mën a orienté xam bu yéeg yëpp teg ko fa ñi ma war a faj ma di leen faj bu baax a baax ndax dëgg la bëri na ñu may faj fee ma nekk ci Touba mais bëri na ñoo xam ne maa ngi leen di déplacé fii Dakar di ñu may fekk ci Touba bu ma sañoon tey duñ déplacé wu fii lañ may fekk ma faj leen. parce tawat dafa metti te tey ñu bari ñu ngi gis Sa ci milieu làmb rek jàpp nañ ci làmb li may faj ci doomu aadama ci xeetu ñi nga xam ne dañoo am ay ci xeetu ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ci ay gàllaaj affaire seytaane ñii ñu jàpp leen ci ay liggéey ñii ci ay korte ñu sànni leen ko ma faj leen am na ci koo xam ne dañ ko sànni woon korte vingt cinq ans ñaar fukki at ak juróom la kort bi def ak moom keroog bi ma koy faj daf ma indil ba indil ma aw fas dama bu ma woon lu ëpp lii dama la ko indil ba muy ñëwaat ci beneen yoon ba nag la ma indil maam lu mu xalaat rek lu muy romb këram rek da ko yëkkati ñëw indil ma ko ndax korte bi fi mu nekkoon ci moom moo garaaw jàpp ko di di ko di lekk affaire bi di dem ba nga xam ne boo yow boo xoolee da ngay gis trou bi bënn ba ca ginnaaw yàlla sama borom bi nag suturaal ma ma jaayanteeg Serigne Saliou nag faj ko ba mu wér mu defal ma loolu ñi booy yëpp xam nañ loolu fa mu dëkki Touba gisal nañ ko seen bopp teg nañ ci seen bët ndax moo doon ñëwal boppam nii di wàcce ñuy gis muy waxal boppam ñuy gis man xaj na yu bari man maa ko nanguwul keroog Modou Anta ñëw na sama kër Touba gis nit ñi niñ mel mu bëgg a jël video yi foofu may liggéey ma ne ko déedéet waaw parce que dama naan ko. sëriñ ak médecin ñooy am si sutura rek nga mën a dund ndax boo dundee ci leneen lu dul sutura rek da nga lor ay doomu aadama te ñiy ñëw ci yow du ñëpp la seen ñoo bëgg seen image di jéem kenn warul xam fu ñuy jaar ak fu ñuy fajoo fu ñuy kii kenn warul xam seen jàngoro nit a ngi yor jàngoro xanaa xamoo nekk ak moom trois ans quatre ans kenn xamu ko ci moom mu denc suturaam rek toogaale moom bu nga ko jëndee ci image bi loroo ko da nga weer. loolu laay daw nag moo tax sama xeetu liggéey ni may liggéey du ma bëgg sax nit ñi di ko gis vraiment li may liggéey làmb ci gën a tuuti li may ñaanal ci ay doomu aadama yu ne bitim réew ak li may ñaanal ci ay doomu aadama yu nekk fii ci senegal ne ci ay jafe-jafe ñii ne ci ay problème ñii ne ci ay yoo xamante ni ay métit yoo xamante ni kenn xam nu mu doon ma dimbale leen ba jënd leen ci mënuma la wax nu mu toll ay émorite rek maa ngi ci faj koo xamante ni moom jàppoon na ne ci àdduna dootul wér hémorroïde bu ko sonaloon dem ba téye nguuraam mënatutoon dara ma dindi ko ci moom ba mu set wecc te yàlla rek tax faj naa koo xamante ni feebaru méttitu biir fukki at ak ñaar la def ak moom fu mu yóbbu ko fa dem ba jaay palaasam ba yoratul dara dagg mburu bu fukki dërëm bokk musaana jox du du ko mënu koo yeexal léegi bu ngeen bokkoon yaa ngi moom boolub ceeb bu sàggoonut léegi tey nga nga bàyyi àddina li ma faj ci doomu aadama nee naa la bu bu ma toogoon di ko jénnee sama téléphone loolu moo daan dañ ciy teg seen bët ñoom Lamine léeg-léeg ñu ñëw toog fii ñu jékki-jékki indil ma nit ñuy gis ñu gis ni mu bu fii dugg nu mel ak muy jénn nu muy mel mais lépp yàlla la taxul ñu ndamoo ko ñun bewuñu yëguñu succès yëguñu dara nu ñu yàlla def Serigne Saliou def ñu ko def ñoo doy